Euh, bi nous joué ba pare sur scène <coughs> ovation continuelle du public là nous am parce que les nous joué mooy euh, bu à la àlaxira nit yi bu ñu a le fait que eh, tu sois perdu le et tout ça. Ah et une loi théâtre au grand théâtre parce que d'habitude ils ont cartonné ah pas mhm. du début à la ah fin parce que d'habitude grand théâtre on a on a l'habitude d'aller là-bas pour des événements autres que le théâtre mhm. alors que grand théâtre voilà du grand théâtre ñu wan extrait jouer franchement ils ont cartonné après léegi nag dafa am fecc bu bees bu ñu doon fecc bu tudd pompas après après ah ah mooy mooy mooy fecc boobu nga xam ne bu jigéen bi day nekk ca kanam def ni après ngay nekk ci kanam de tiir yow noonu ko daan defee waaw xale bu jigéen bi day jiitoo waaw xam ko ci ngay léegi ma laaj la yow yow nan woon ak kii yaa ko neex. maa ngi woon ci biir ci biir. waaw euh, noo defoon ak yaay bañ. maa ko tere woon neex. ak yaay bañ nag. maa doon nangu. yaa doon nangu waaw. ah gaawal yaay ñëw. maa ko doon wax sax mu tëj bunt bi. ah ah ah. ah. yaa ngi ca maa ngi ca woon neex kay. taay diis la nga def. waa garaawul bind ko rek yooyu boo ko bindul dañuy bind seen bopp te boo demee fee ci lay gën a metti fam ah xam nga ko saxal waaw ah, yow garaaw après nous ñi bëgguñu woon benn date kese bëggoon nañu au moins euh, soleil levant chaque week-end au grand